kon incha allah ñu ngi war a jël tey ay fanweer bi ak juróom-benn muy 36 ci suratu tawba ci suñu borom di waxee ni inna iddata shuhuri inda allahi isna ashara shahra alhamdulilahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نيجي يسال سنتات سني بروم سبحانه وتعالى من ورسغل ندجوات تياب نيغم تسيني جانغ ليدي ابتيريم mu digi ñu ca ay dig yu kawe lool ñu ngi koy ñaan yal na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko ca boole ca ñépp ñoo xam ni ñoo ko nar a déglu ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf fayal ñu ñi nga xam ni ñoo dox suñu diggante ak ñoom bokk na ci sit yi aju ci jàkka ji waaye it suñu télévision bi nga xam ni léegi dañ koy tuddee IMTV dañ ko dugal ci TNT bi képp ku koy recherche da ngay def IMTV mi ngi noonu ñu ngi ñaan borom bi fay ña koy taxawee ak ñëpp ñu leen di dimbali. kon tey mooy ñaar fukkeelu fan ci weeru décembre ci deux mille vingt trois di tombeeg juróom-benneelu fan ci jumadal ula naam mooy jumadal axira sunu maam yi di ko tuddee maamu koor. ci 1445 ci gàddaayug yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu kon mi ngi noonu incha allah Cheikh Ousmane dafa nekk ci tukki Cheikh Alioune Sarr moo ñuy jàngal kon suñu bind bi incha allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu borom mu ne inna iddata shuhuri inda allah lii di limu weer yi ca yàlla day isna ashara shahran fi kitaabillah nekk ne fukki weer ak ñaar ci téereb yàlla bi yowma xalaqa alsamawati wal ard keroog ba yàlla bindee asamaan yi ak suuf minha arbaatun xurum am na ca nag ñeent yu ñu warmaal zalika diinul qayim lool day mooy diine bu jub ji fala tazlimu fihinna anfusakum fexe leen bu bu leen tooñ ci weer yooyu seen bakkan wa qaatilul mushrikina kaafa xeex leen ak bokkaalekat yi mboole seen am ñu ko firi qaatilul mushrikina kaafa yéen ñépp ànd leen xeex ak bokkalekat yi kama yuqaatiluunakum kaafa ni nga xamee ne mushrikuna ñoom ñépp dëppoo nañ ci xeex leen waalamu anna allaha maa almuttaqin te ngeen xam ne yàlla mi ngi ànd ak ñi ragal yàlla mi ngi noonu bokk jullit bokk na ci kawtiif ci xikma suñu boroom ak yërmandeem mooy ni mu séddalee la temps temps boobu mu jëkk ko teqale guddi ak bëccëg ñu ngi ñuy laaj ne waaw أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بدياء ينون أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه mooy bu doon yàlla dafa fixe jantam mooy nit ñi nekk ci bëccëg permanent wala nekk ci guddi permanent mbaa ko kon dund kaw suuf dana metti nit ñi daan jaxasoo waaye suñu boroom moo ñu séddale la temps di ñuy indil guddi indil ñu bëccëg benn jour a ngoog kon mu séddale war jour yi àdduna yépp dëppoo ci ne bu ñu defee une semaine mooy dañuy war a jël beneen bis mooy semaine bi juróom-ñaari fan la gannaaw ba itamit daanaka àdduna yëpp dëppoo nañ ci ne weer yi day doon loo xamee ne ni fanweer la wala lu ko yées wala lu ko ëpp tuuti ñëpp dëppoo nañ ci douze mois yi presque calendrier yëpp dëppoo nañ ci fa ñu wuutee kay mooy fan lay commencé ak fan lay jeexe amma suñu borom subhanahu wa taala moom mu xamal ñu ne li mu wéeri ci yàlla nekk ne fukki weer ak ñaar mu war maal ca juróom mu war mu war maal ca ñeenti weer gis ngeen loolu mi ngi amoon depuis mu bind asamaan yi ak suuf ñeenti weer yooyee ci lislaam mooy li ñuy tuddee zulqaada zulhijja muharram sun maam yi di ko tuddi digg tabaski tabaski ak tamxarit yooyu dañoo tegaloo ñeenteel ba mooy rajab nga xam ne weer wi ñu nekk bu jeexee ca la ñu dugg muy ndey koor loolu nag mbokk julit bu doonte ne ne tey jii àdduna fu bari chinois yaag ñeneen nag ñeneen am nañ seen calendrier bi ci gën a siiw mooy li ñu tuddee la calendrier grégorien bi nga xam ne occidentaux yi presque ci la ñu basé wu imposé ko mboolem niñ mës a coloniser loolee kon da nga gis ñu bari ci la ñu jàpp ne at bi mi ngi commencé le premier janvier di jeex le 31 décembre amma mbokk bu dee diine l'islam moom li mu xam mooy at mi mi ngi commencé le premier ci bisu tamxarit muy muharram di jeex heure bu weer yi feeñee ci zulhijja borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne moo ci def kon ñeenti weer yoo xam ne dañ koo warmaal te bokk na lañ ko gën a warmaal mooy la nga xam ne nii mooy kenn du ci xeex arab yi bu jëkk ñoom seen wàllu bopp loolu ñu jële woon ca baay ibrahim doon nañ ko continuer ci seen aada doonte ni jalgati gañ ca def dañ ko jàng ci kanam suñ borom nag mu ne bu leen ci tooñ seen bopp te mbokk jullit it jullit dafa war a xam ne suñu borom moo tànn ay place tànn ay ay temps bokk na ci place yooyee mooy la nga xam ne mooy ay jàkkaam ku ne xam ne ne ni dem ca terrain basket bi di fa njaaloo baaxul ñun ñëpp xam nañ ko amma ñëw ci jàkk ji di njaaloo nag loolu moom bokk jéggi na dayoo masjidul haram suñu borom mu ne ku fa bëgg a def waxul ko fa def de ku fa bëgg a def lu bon sax mbëggal mu tar dana ko xaar noonu it la la la temps bi mel mooy weer yépp def ca bàkkaar baaxul waaye nag rawatina ca la nga xam ne mooy ñeenti weer yooyu ñu lim borom bi mu ne bu leen ci tooñ seen bopp te mbokk jullit jullit mooy boppam fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah soo nuyoo sa mbokk jullit nuyu nga sa bopp mi ngi noonu loo defal sa mbokk jullit defal nga ko sa bopp kon boo ko lor it mel na nga lor nga sa bopp te mooy kon bu ci kenn tooñ bu leen tooñante seen biir bu leen tooñ seen boroom seen bopp ci seen digganteeg seen boroom gannaaw ba it xeex leen ak bokkaalikat yi mboole seen bu leen ca xool kii ñoo bokk wala bokkuñu képp kuy bokkaale xeex leen ak ñoom te loolu mbokk da suñu borom yàlla mujj joxe ndigal mooy imma ab yéefér nga dañuy xeex ak yow ba nga dugg ci lislaam ahlul kitab nga dañuy xeex ak yow ba nga nangoo joxe impôt islam contrôle dëkk ba nga nekk bu ñu lay bàyyi ñu bàyyi la ca la nga nekk suñu borom it ngir dëgërloo fitti julit ñi mu ne leen xam leen ne yàlla ngi ànd ak ñi ragal yàlla te it niñ ko waxee ci dars yi passé ngeen yegg ko dégg feneen mooy armée islamique mësuñoo xeex ak armée bu toll ne ñoom ñi ñu doon xeexal ñëpp dañ leen a ëpp ay yooni yoon lu dul la xewoon ca kër ga Xunayn ba ñu yéemee seen bopp la ca xew gis ngeen ko suñu borom mu ne mi ngi ànd ak ñu ragal yàlla donte ne mbokk yàlla ngi ànd ak ñëpp dafa am lu ñuy tuddee maiyatul xaas ak maiyatul am suñu borom yàlla amul fu doomu aadama yi nekk lu dul mi ngi ànd ak ñoom waaye nag bu dee ñu ragal yàlla mi ngi ànd ak ñoom ci dëgëral leen ci jàppale leen ci dimbali leen ci xettali leen ci yëkk ci seeni daraja ila axiri loolu mooy borom bi subhanahu wa taala di wax ni mi ngi ànd ak ñi nga xam ne nii kon dañoo ragal yàlla mi ngi noonu Cheikh Ali
إنما المسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير
بارك الله فيكم سني بروم سبحانه وتعالى مني إنما النسيء lii di yéexe benn weer ca weer yu ñu warmal day ziyaadatun fil kufru ak ndollante la ca kéefér ga ñu nekke yudallu bihi allazina kafaru dana ca sankoo ña nga xam ne dañooy weddi yuxilluunahu ama daañ ko daganal wi at mi wa yuxarrimuunahu ama araamal ko beneen at li yuwaati u iddata ma xarama allah ngiree ñu dëppoog lim ba yàlla araamal fa yuxillu ma xarama allah ñu daganal la yàlla araamal zuyina lahum suu amalihim taaral nañ ñeel leen seen ñaawteefu jëf ya wallahu la yahdi alqawma alkafirin yàlla nag du jëbal xeet boo xam ne dañoo weddi nekk yéeféer ya ayuha alladina amanu ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm ma lakum ida qiila lakum infiru fi sabilillahi saaqaltum ila al ard lu leen ñeel ba buñ leen waxee génn leen dem jihaati ci yoonu yàlla ngeen nekk di diis diis lu jëm suuf araditum bil xayaati dunia min al axira xanaa da ngeen a gërëm dundug àdduna gi ci kaw dundug al axira fama mataau l xayaati dunia fi l axirati illa qalil nekkul bànneexug dund àdduna boo koy méngaleeg al axira lu dul lu néew lool illa tanfiru su dee nangu leen a jóg dem day yuazibukum azaban alima dana leen mbugal mbugal mu tar wa yastabdil qawman gayrakum daa di soppi beneen xeet bu bokkul ak yéen wala tadurruhu shay'a te du ngeen ko mën a lor ci dara wallahu ala kulli shay'in qadir yàlla nag bépp mbir mooy ka ci am kattan mi ngi noonu bokk julit bokk na loo xam ne yéeféer yi dañ ko doon def mooy ñoom seen diine lim doon yàqu-yàqu gëm nañ ne ñeenti weer yi kenn du ci xeex léegi nag ñoom bu ñu masaan jekku seenum noonu masalan agsi nañu makka jekku nañu seeni noon ci tamxarit bii di ñëw cay dag araam nañu xeex ca dañuy dem ci seen buxaaba yi su ko defee ñu ni léegi tamxarit bii di ñëw dañ koy soppi au lieu ñu def ko tam xarit ñu def ko digg gàmmo léegi digg gàmmo ba la ñuy def tam xarit daal di changé la nga xam ne muy turu weer yi buñ ci xeexee ak seenum noonu léegi nag bu déwénee bu tam xarit jotee ñu delloo ko waat nag fa mu nekkoon moom la borom bi subhanahu wa taala di wax ne yéeféer yi day bokk na la leen di réeral di yokk seenu kéeféer mooy loolee nga xam ne dañ koy tuddee an nasiu muy wane it ne mbokk julit kéeféer yemuñu léeg la ngay dégg ñu ne la zanba baad al kufr ki nekk yéeféer amatul benn bakkaar buñ koy waxal déedéet mbokk julit yéeféer yi yemuñu suñu borom mu ne allazina kafaru wa yasudduna an sabilillah zidnahum azaban fawqa al azab bima kanu yasdifun ñi nga xam ne dañoo nekk yéeféer yemuñu ci ñuy fekk nit ñi ci yoonu yàlla pour ñu bañ a dugg ci diine dañ leen mbugal mbugalu kéeféer ga ñu nekke teg ci mbugaluk la nga xamee ne nii mooy la ñuy fege ci yoonu yàlla naka noonu it borom bi mu ne nasio bi ziyadatan fil kufr la looloo tax yéeféer bi daañ ko mbugal yowmal qiyaama ngir yéeféer la daañ ko mbugal ngir julliwul wóorul ajul makka kaza wa kaza loolu tax waa sawara bu ñu leen laajee ma salakakum fi saqar qaalu lam nakk min almusallin wa lam nakk nutimu almiskin wa kunna naxulu ma alxaidin wa kunna nukazibu bi yowmi din donte ne bu ñëwoon rek kunna nukazibu bi yowmi din mooy wañu ne sawara lañ jëm waaye la fekk ñu dëll ci loolu ñu si dolli yépp day yokk seenu mbugal kon borom bi mu ne ñoo koy daganal mu bokk ci lu yàlla gën a bañ kiy araamal li yàlla daganal wala di daganal li yàlla araamal te loolu jàngoon nañ ci alarba ji passé suñu borom di wax naan ittaxasu ahbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min dunillah ba ñuy jël seen borom xam-xam ya di leen def ay yàlla te kii di ibnu xaatim na ko yu mu yàlla yónni ñun defuñu leen woon ay yàlla lan la yonente bi alei salaam tontu est ce que daawuñu leen daganal lu yàlla araamal ci yéen mu ne ah kay est ce que daawuñu fekk lu yàlla faratal ci yéen ñu teral leen ko ngeen bàyyi ngeen bañ koo def mu ne ah kay loolu it mbokk mi ngi noonu bépp jaamu yàlla bu yàlla santaane am ku ñëw ne la bàyyi ko nga bàyyi ko ku mel noonu teg nga ko place yàlla bépp lu yàlla xaraamal ne lii bu leen ko def am ku ñëw jox leen ndigal ne la defal xamal ne teg nga ko place yàlla jalla waala loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax mi ngi noonu su ko defee ñu xam ne ndigalu yàlla moo war a jiitu ci bépp ndigal borom bi nag mu ne wala taqulu lima tasifu alsinatukum haza haramun wa haza halal bu leen wax mukk ci fen yu màgg lii dagan na lii xaraam na te yàlla waxu ko yonent yàlla waxu ko borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne dañ leen taaralal seen jëf yi ku leen ko taaralal mooy cheytaan cheytaan mu leen ko taaralal waxoon na yàlla la uzayyanana lahum fi l ard danaa leen taaralal te mbokk loolu mooy biddaa biddaa heure boo xam ne doomu aadama da koy def dafay xaw a nuroog sunna bu ko defee dañ koy taaral nga jàpp ni lii lu baax la ndax ñoom li ñu gis mooy ñeenti weer la yàlla warmaal ñun daañu fexe ba at mi ñu warmaal ci ñeenti weer jeex na donte dañuy décaler weer yi yàlla araamal suñu borom mën a seytaane taaralal na leen loolu loolu it mbokk nañu xam ne lépp loo xam ne dafa jóge ci xalaatu doomu aadama ñu dugal ko ci diine ji képp ku ko indi yaa ngi indi sharia bu bees te yaa ngi dir yàlla mbagg moom la imam shafii rahimahullah doon wax naan man istahsana faqad sharaa képp ko rafetlu dara ne lii nañ ko def ci diine yàlla ji ku mel noonu teg na sharia suñu borom mu ne am lahum shurakaau sharau lahum min ad-din ma lam yazan bihi llah ndax am nañ bokkaale yoo xam ne dañ leen di tëralal ci diine ji lu yàlla joxewul ndigal suñu borom bàyyi loolu commencé fii nag ba saar bi di jeex di waxee ñi gën a compliqué ci l'islam gën a nekk noonu l'islam te mooy nafiq yi julit moom julit la ay mbiram leer na yéeféer ba tox fee ne gëwuma ay mbiram leer na mais ki gën a compliqué mooy yéeféer bi ñëw sol mbubum julit ànd ak julit ni looloo tax daanaka desitu saar bi yépp ci ñoom la yàlla di wax borom bi daal di commencé daal di ne ay yéen julit ni ana lu teex buñ leen waxee jóg leen jihaati fi ci yoonu yàlla lenn ci yéen diis diis lu jëm ca suuf mbaadu da ngeen gëne la àdduna ci kaw alaxira xam leen ne àdduna day lu néew la buñ ko méngaleeg alaxira bokk loolu li ko waraloon mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne dégg na ne waa ruum yi la féete tabbuuk jëm kaw ñi ngi waajal jëm ci l'islam mu jëfandikoo loolu nga xam ne xatta tubaab bi da koy def mooy la meilleure façon de se de se défendre c'est d'attaquer ñu ne kon nañ dem ñun jëkk leen a jëkk leen a attaqué comme nag fañ jëmoon dafa sori quatre cent et quelques kilomètres diggante Madina ak Tabouk mu nekk ci jamono ju tàng lool mi ngi noonu nañuy fekki bari doole lool yonent bi alayhi salaam heure bu daan dem guerre da koy laqe beneen ngir bañ ñu avertir fan jëm masalan bu doonte ne dafa jëm Saint-Louis danaan gars yi waaj leen ñu dem Kaolack bu ko defee armée bi yépp waat ne Kaolack lañ jëm agent secret yi nga xam ne dañuy dem nekkal fi noon yi suñ demee avertir waa Kaolack suñ demee ba jam ñaajo nag mu détourne armée bi ne Saint-Louis lañ dem amma bi ñu dem Tabuk dafa woo ñépp ne joxuma kenn ndigal pour mu toog képp ko mën a dem na jóg ñu dem Tabuk lañ jëm ca la nga xam ne mooy noonu romain yi ah loolu ba nga xamee ni nii am na nafiqi yi ku ne joxe sa lay daal di toog borom bi nag ne mbaaju da ngeen gënali dundug àdduna ci àllaaxira xanaa xamu leen ne dundug àdduna ci àllaaxira lu néew la te mbokk loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe na ci misaal boo xam ne yonent rek ko mën a joxe yonent bi alayhi salaam nee na mboole mi xéewali yàlla wàcc ci kaw suuf suñu koy méngaleeg la yàlla denc ca ajjana mi ngi mel ne kenn ci yéen demoon géej samp baaraamam ci biir ndox mi li taq ci baaraamam mooy xéewlu àdduna la des ci géej ga mooy aljanna ndax gaa yi loolu mënees na koo méngale kenn mënu koo méngale àdduna lu yàlla néewal la lu yàlla soofantal la yonente bi alayhi salaam mu ne law tusawi dunya inda allahi janaha ba'uda ma saqa minha kafiran sharbata ma yàlla bu doon fonk na àdduna lu tol ne laafu yoo yoo ak ni mu tuutee lu toll ne laafiyoo bu ko fonkoon àdduna benn yéeféer du fa naan kaasu ndox waaye yàlla dafa itteelul àdduna da ko yitteelul da ko def rek piège ngir ñi nga xam ne nii gëmuñu ko nañ ko war a gëmee looloo tax suñu borom ne xam leen ni àdduna du dara par rapport ak alaxira kon lan moo tee ngeen dem jihaad yi fi sabilillah la fa mën a xew mooy ngeen gañe seen noon wala ngeen dee fa bu ngeen dee dem àjjana borom bi nag subhanahu wa taala ni xam leen ne su ngeen demul day danaa leen mbugal mbugal bu tar te it mbokk mi ngi noonu jullit ñi bañ demee ba bàyyi jihad fi sabilillah gis ngeen li nga xam ne mooy li am seeni noon ñëw nañu noot leen mboolem li ñu am ci alal mi ngi ci loxo noon yi ñoo leen ñoo leen dar képp tey jii suñu mbokk yaa ngi ne Palestine penku jant sowu jant ñi ngi gis ñi ngi leen di rey guddi di leen rey bëccëg nam gën a méttee nous sommes un milliard et quelques de musulmans combien de pays lañu am mais ana kan mooy réagir dem xeex foofu ñemewuñ ko lan moo ko waral mbir baa nga bañ a woon ca mbambaxaan bañ demee ba sàggani jihaad ba suñuy noon jël relève bi la ñuy gis ne loolu amatuñu benn kattan donte ne borom bi subhanahu wa taala nag nee na yéen sahaaba yi war yonent bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen nangu wala génn jihaad danaa soppi ñu leen gën foofu ñoo xam ne nii yéen ma yóbbu leen ci du ngeen lor ci yàlla dara te loolu it yàlla wax na ko ci aay yu bari mooy man yartadde minkum an diini fa sawfa yati llahu bi qawmin yuhibunahu wa yuhibuhum wa yuhibuna azillatin ala almuminin aizatin ala alkafirin yujahiduna fi sabilillah wala yaxaafuna lawmata laim suñu borom mu ne day am naa kàttan ci yéen ma yóbbu leen indi ñeneen ñoo xamee ne nii dañuy tar ci yéeféer yi bëggante suufante ci seen biir dañuy jihaat ci yoonu yàlla te duñu ragal ci yàlla lenn loo xam ne nii dañ ko cee ragal loolee kon la suñu borom yàlla subhanahu wa taala laytaaye comme ni ma leen ko nettalee daanaka baba sar bi jeex mi ngi nar a wax ci ghazwatu tabuk di xeex ba nga xam ne amoon na tabuk yonente bi alayhi salaam génn fa def fa lam fa def amma nag jiitu loolu danañu wax génn gëm génn makka moom la ñuy nar a jàng nii bismillah
إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم بارك الله فيكم suñu borom jalla wa ala mu ne illa tansuruhu su ngeen dimbaliwul sama yonent bi day faqad nasarahu allah yàlla moom dimbali woon na ko id axrajahu allazina kafaru keroog ba ko yéefiri génne saanis nayin mu nekk ñaareelu ñaar ña is huma fi lgaar ba ñu nekkee ci biir xuntima ca montagne ba is yaqulu li saaxibi ba muy wax àndandoom ba laa tahzan inna allaha ma'ana bul tiisu yàlla ngi ànd ak ñun fa anzala allahu sakinatahu alayhi noonu la yàlla wàccee dalam nga ca moom wa ayyadahu bi junudin lam tarawha daa di koy dimbilee ci armée boo xam ne gis leen ko wa jaala kalimata alladina kafaru sufla def li di kaddug yàlla kaddug yéeféere mu nekk lu gën a suufe wa kalimatullahi hiya al uliya amma kaddug yàlla moom mooy la féete kaw wallahu azizun hakim sa borom yàlla moo not lépp ci kattanam mooy ki xereñi bokk julit suñu borom mi ngi fàttali naafiq yi ne bu ngeen nanguwul jóg ànd ak yonent bi dimbali ko ci jihaad xanaa fàttewu fàtt da ngeen a fàtte ne moom de yàlla dimbali na ko keroog ba ko yéefiri di génne te loolu mbokk mooy keroog ba yonent bi alayhi salaam di gàddaay yéeféeri makka yi fukki at ak ñett ñi ngi xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci façon contrainte bu nekk façon xatal bu nekk rey nañ ay sahabaam sonal nañ ko lu la ñu def ko ba ala fee ñu ne daal mbir bi moom mi ngi bëgg a soof te il faut ñu xool naka lu ñuy def ak moom gis ngeen bañ dajee seen réunion ba ñu daal di décider ne nañ ko rey rey daal lañ koy def rey gi nag naka lay demee mooy waa bani hashim ku ko rey dana doon problème sa diggante ak ñoom kon mboolem giir yi nekk makka bu nekk nañ fa tànn lu jóge fukki ponkal ak seeni jaasi bu ko defee bu génnee naan day dem kaaba ga ñépp reyandoo ko benn yoon waa bani hashim mënuñoo xeex ak makka yépp liñ man mooy laaj diya luñ laaj ñu jox leen ko am na riwaaya yuy wax ne ñi doon tëkk yonent bi alayhi salaam mat nañ téeméeri jeune ak seeni jaasi yàlla subhanahu wa taala dogal xabaar bi yonent bi alayhi salaam yëg na ko bi mu ko yëgee ne guddi lañ ko nar a waajal pour rey ko ci bëccëg bi mu dem kër Abu Bakrin Saddiq ne ko ah yàlla day jox na ma ndigal ci ne naa gàddaay mu ne ko ah baa jox na la ndigal pour nga ànd ak man mu ne ko waaw yàlla jox na ma ndigal yow lay àndal bankal sa baaraam benn ca Abubakar ngi noonu yaay Aïcha nee na man booba xale laa maa ngi gis sama papa di jooy keroog laa ma sa xam nit dana kontaan ba jooy damaa foogoon kuy jooy moom dañ koo duma rek yaa ngi dégg waaye keroog laa ma sa xam nit dana kontaan ba jooy nee na sama papa jooy fekk mi ngi waajoon ñaari gileem yoo xam ne nii préparé woon na ko rek pour bu yonent bi day gàddaay mu ànd ak moom léegi nag yonent bi alayhi salaam na ko nag li ñuy def mooy mënuñoo génn ni di dem nañu bàyyi ba xaaju guddi ñu dem donte ne yàlla xamal na ko plan bi ñuy def bañ demee ba xaaju guddi yonente bi alayhi salaam jox ndigal àddin pour mu ñëw toog ci place am ngir delloo ko ay ay non ay yañ ko dénkoon liñ doon liñ ko doon bañ bañ bañ moom lañ doon dénk moo nekkoon seen banque gannaaw ba yonente bi alayhi salaam génn bi mu génnee ñoom ñëpp yàlla nelawal leen ñoom ñëpp yàlla nelawal leen soo demee ci téere tafsir yi wallahu aalam dañu yonente bi mu génne ma nga jàng aaya ba nekk surte yasin wa jaalna min bayni aydihim sadda min xalfihim sadda fa axshaynahum fa hum la yubsiroon noonu la génne ñoom ñëpp ñu ngi nelaw boo demee mu fassiru ne caamin yi sax ñu ne seytaane ma nga ci woon nee na keroog lu ma sa nelaw moom bi seytaane sax nelaw na yonente bi romb leen dem gaa yi di nelaw di nelaw ba waa màkk yow fekk jadd bi fenk ñëw gaa yi ñëpp ngi xandoor ñu leen pëkk pëkk waaye yéen ana Muhammad ñu ne Muhammad Muhammad moom dem na bu yàgg gis ngeen kon mbokk yàlla dimbali na ko dimbali na ko léegi nag suñu borom yàlla subhanahu wa taala it day jàngal doomu aadama yi la nga xamee ni nii mooy àdduna da nga war a boole ñaar lu la yàlla may ci moyen def ko gannaaw ba nga sukkandiku ci yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam tey jii masalan bu doon te ni dafa naroon a jóg dem Madina man nga wax ak Nouakchott à peu près Dakar Nouakchott daan dem dem dem dem Madina bi mu jógee moog Aboubacar dañoo dem Ngor Ngor lañ dem làqu ji ci xaaru sawr mi nga noonu soo demoon montagne ba ñu làqaltu woon yambar mënu faa yéeg fa lañ dem làqatu pendant ñetti fan doon te ni ne hijra boobu rek doyoon na conférence spéciale yaa ngi dégg conférence spéciale ala kulli xaal moog saahibahu di waxoon naa leen benn day ba mu demee ànd ak moom tey nag suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne saanis nayn ba mu demee ñaaral ñaar ya gis ngeen ñetti ngi noonu ñaaral ñaar ya mooy kan chia bi gën a bañ abubakar xam ne ne abubakar la woon am déet is huma fil gaar is qaala li saahibihi ba muy wax sahabaam ba abubakar rek la yàlla saxal ak sahabaam ne ko laa tahzan inna allaha maana yàlla mi ngi ànd ak ñun gaa yi kon yàlla nga ànd ak abubakar ak yonente bi alayhi salaam waaw mi ngi noonu xatta yonent yàlla Moussa keroog ba muy xar géej ga waa bani Israël jàq naan ko gars yi daan ñu def mu ne kalla inna ma'iya rabbi yàlla mi ngi ànd ak man mais gis nga suñu borom yonent yàlla sunu wax inna allaha maana yàlla mi ngi ànd ak ñun suñu borom yàlla wàcce la nga xam ne mooy sakinatuhu ci moom wala may jàll mbag kooku Abubakar Siddiq mooy ki ñaareel yonent bi alayhi salatu wasalaam looloo tax bi fi yonent bi alayhi salaam jógee sahaaba yi dëppoo xam ne kenn ko mën a wuutu muy abubakar siddiq radiallahu anhu mi ngi noonu mooy ki bëggoon yonent bi jël alalam yépp jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci lu ma mën a joqi rek ci xaaru sawru ci ñetti fan yañ fa def toog nañ benn temps seen ndox mi yépp jeex abubakar bi mu roccee ko ba dem gis benn sàmm daal di koy ñaan meew bi mu yoroon ñu ratt ko tàngaay arabi saoudite boobu nee na mu ñëw indi indi indi indi indi meew mi ci yonente bi alayhi salatu wasalaam sotti ci ndox ak yooyu nee na bi ma ko uppee ba mu sedd ma jox yonente bi mu ne yonente bi naan ba ma màndi ndax ndax gis ngeen loolu mu ne yonente bi naan ba ma màndi man gis ngeen ndax bëgg gi mu bëggoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon mbokk foofu la ñu nekk mu ne ko nag bul tiisu yàlla nga ànd ak man te it mbokk heure bu la yàlla tegee tiis ak njàkkara sa xel ne dem ci yàlla ala bi zikrillah tatma'innul qulub heure boo delloo ci yàlla rek yàlla mooy tegg tiis yonente yàlla yunus ca biir balinu jën ba laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin mi ngi noonu yàlla kenn yow lu ñu ko jaamu ko dul yow sell ñeel na la bokkoon na ci tooñ kon del def zikrullah bari na lool ay askar yi ñu yonente bi alayhi salaam jàngal ci ne ku nekk ci tiis di ko wax yàlla tegg tiis ba bari na lool bokk na la ca gën a gàtt allah allahu rabbi la ushriku bihi shay'a yàlla yàlla mooy suma borom bokkaale wu ma ko dara gis ngeen ak yeneen ak yeneen ak yeneen suñu borom mu ne noonu la wàccee ci moom gannaaw ba ma dimbilee ko ay armée yu ngeen gisul donte ne ne soo delloon ci yenn nit ñi dañ naan yàlla dafa yónnee ay jargoñ mu daal di tagg mbaar buntu xaar bi ak yooyu yooyu moom bokk wérut li wér daal mooy suñu borom yàlla génne na ab yonentam dimbali na ko waa makka génne ñaari téeméeri gileem ku indi bopp abu bopp muhammad téeméeri gileem ku indi bopp abu abubakar téeméeri gileem jàmbaar yépp jógandoo fu ne ñu wër fa yonent bi alei salaam nekk ci xaaru soro làqu fa ma abubakar pendant trois trois jours ba baa mu dal ñu doog a génn dem ban demee it dem madina suñu borom mu ne dimbali naa ko te mooy wàcceel na ko la nga xam ne moom mooy ay armée ci keroog xasatu badr toroxal yéeféer yooyu nga xam ne ñoo ko génne woon gannaaw bi it mu wàccee la nga xam ne kaddug yéeféer yi yëkk ci kaddug yàlla ba tey mbokk màkka googu ñu ko génne woon lan moo fa xew mooy juróomi yoon par bis yaa ngi dégg ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah kaddu yàlla googu ñu ngi koy yëkkati ca Washington ñu ngi koy yëkkati Russie ñu ngi koy yëkkati partout dans le monde di yëkkati kaddu yàlla gi ànd ak turu yonente bi sallallahu alayhi wasallam amma yéefar ya ko doon xeex moom seen mbir dem na ci la nga xam ne mooy neen loolu it mbokk ñu xam ne lii di ak dal ci yàlla subhanahu wa taala la jógee yonente bi sallallahu alayhi wasallam keroog ba ñuy waaye yéeféeri dajaloo pour ne dañuy fay l'islam ci biir Madina xam ngeen ne am na benn fossé bu ñu gasoon ghazwat ahzab mi ngi noonu muy xandaq boobu ñu gasoon bañ koy gas ak yi muy yàlla yóbbu Madina ak xeer yi nga xam ne moo nekk foofee dañu gis na ay équipe lañ defoon yonent bi alayhi salaam bokk ci équipe bi summi ko yor pikk ak peel di gas ànd ak saxaaba yi ñuy way allahuma lawla anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna fa anzilan sakinata alayna wa sabbit al aqdama in laqina in al ula qad bahu alayna in aradu al fitnata abayna yonent bi alayhi salaam ànd ak saxaaba yi jiite wayya ay yàlla bu dul woon ak yow duñu tege mukk ci yoonu njub mbokk yàlla la ñuy ñaan njub heure bu nekk ci njub yàlla nga ko war a sante alhamdulillah ala ni'matil islam ala ni'matil hidaya yàlla bu dul woon ak yow du ñu nekk di génn ay sarax bu dul woon ak yow du ñu nekk di julli ay yàlla yàlla na nga wàcce ak dal ci ñun fan zilan sakinata alayna ndax borom bi mu ne is jaa'ukum min fawqikum wa min asfala minkum mi ngi noonu lu ëpp 10 000 ci ay xeexkat ñu ngi leen wër te yonent bi presque ay 3000 la yoroon loolee kon anzil wàccal sakina ci ñun te it suñu borom nga dimbali ñu dëgëral ñu suñuy tànk heure bu ñu dajeeg noon yi yonent bi alayhi salaam boole ca ne yéefiri day ñi ngi nii a bew jëm ci ñun waaye bu dee bokkaale rek lañ lañ lañ bëgg abay naa duñ ànd ak ñun ci bokkaale googu yépp loolee mbokk kii mooy suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam yàlla mi wàcce woon ci moom ak dal yàlla na yàlla wàcce ci ñun ak dal adduna ak alaxira mi ngi noonu Cheikh Ali
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين بارك الله فيكم kon suñu borom jalla wa ala mu ne infiru xifaafan wa siqaala ay waay jóg leen génn ci ak woyof ngeen nekke wala jamono ju ngeen diise wa jaahidu bi amwalikum wa anfusikum ngeen jihaad ci seen ci seen alal ak seeni bakkan fi sabilillahi ci yoonu yàlla zalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun loolu day moo gën ñeel leen su ngeen nekkoon di xam law kaana aradan qariba bu doonte ne lii day ngañaay la luy ñu gaaral mu jege leen wa safaran qasida ak tukki boo xam ne nii bu jub la amul benn danger lattaba'uuka kon de doon la topp doon nañ la topp walakin ba'udan alayhim shuqqa waaye sori na ci ñoom lii di jafe-jafe tukki ba wa sa yaxlifuuna billah xel sa nuna nekk nag di waat ci yàlla law istataana la xarajna maakum bu ñu mënoon kay daan génn ànd ak yow yuhlikuuna anfusahum ña ngay alag seen bakkan ya wallahu yaalamu innahum la kaasibun donte ne yàlla xam ne ne ne ñoom day dañuy fen yow yonent bi sax afa allahu anka yàlla jéggal na la waaye li ma azinta lahum lu tax ngay leen di jox ndigal xatta yatabayyana laka allazina sadaqu ba baa muy leer ñeel leen ñi nga xam ne dañoo dëggu wa taalama alkaasibin nga xam ñi nga xam ne it dañoo nekk ay fenkat mi ngi noonu mbokk suñu boroom dafay wax ne génn leen ci bu ngeen wooyee fii ak bu ngeen diisee mbokk jihaad fi sabilillah gis nañ ne dafa am ñaari façon jihaad am na lu ñuy tudde jihaadu difaa mooy jihaadu défendre ay noon jóge nañu fële attaqué dëkkul islam loolu day nekk farata fardu ayn ci képp ku nekk ca dëkk ba te mën a am benn effort mu engagé wu ci xeex boobee beneen bi mooy li ñuy tuddee jihaadu talab mooy islam moo organisé wu ngir tasaare ji kàddug yàlla su boobaa nekkul farata ci mbooloo mi yépp mi ngi noonu waaye képp koo xamee ne nii amir bi jiite xeex bi jox na la ndigal da ngaa war a génn dem loolu bokk na ci keroog xasutu tabuk rasul sallallahu alayhi wasallam dane képp ku mën a xeex na jóg dem su ko defee tamit amir mën naa wax ne képp ku am vingt ans ba quarante ans na jóg dem wala képp ku am fas na jóg dem ila axiri loolee da ngay gis ne noonu lañ ko départagé léegi nag suñu borom mu ne bu ngeen wayefee dem leen bu ngeen diisee dem leen ngeen jihaat ci yoonu yàlla loolu moo gën ñeel leen te it mbokku jihaat ci yoonu yàlla lay nekk képp koo xam ne yaa ngi jihaat ngir bëgg a dajale alal jihaat ngir conquérir ay ay ay état islam gërëmut loolu islam li mu xam ci jihaat mooy kaddug yàlla kawe ñëpp dugg ci diine yàlla di ci jàmm jihaat boobu it nañ koy waxoon ci dar dar si yi passé mooy tubaab bu déggee jihaat ak dirit ñi xamul xeex rek la ñuy xalaat waaye mbokk jihaat gën na yaatu xeex téeméer yoon xeex ci biir jihaat la moo tax suñu borom di jiital am bi am waalikum mbokk alal mooy base lu bari ci jihaat te mooy fexe ba jurit ñi am la nga xamee ne mooy kattan am dund gu doy am ay arme yu doy am ay ay dëkkuwaay yu doy yooyu yépp da ngay gis lañ ca def ci yàlla tax dañ ko tudde jihaad fi sabilillah suñu borom it mu ne looloo gën ñeen leen jàngoon nañ ci suratul baqara borom bi mu ne kutiba alaykum alqital wa huwa kuruhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum xam naa ne jihaad bi ma faratal ci yéen day neexu leen waaye ak a bari lu ngeen di bañ fekk moo gën ci yéen te na am mbokk sahabatul kiram keroog bañ nangoo ànd ak yeneen tibi alayhi salaam jihaad ànd ak xulafa u rashiduna jihaad la leen yàlla may ñu jiite empire boo xam ne nii empire bu mag la li borom bi waxit ne su ngeen woyefee ak bu ngeen diisee dem leen mbokk kii di abi talha al ansari abi talha al ansari mooy ka nga xamee ne ba suñu borom wàccee ni lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun du ngeen mën a jot mbaax lu dul ngeen joxe ca li ngeen gën a bëgg dafa ñëw ci yeneen bi alayhi salaam ne ko sama jardin bi sus ci jumaa ji day di bay ruxa moom laa gën a bëgg sama alal joxe naa ko fi sabilillah gis ngeen abi talhat al ansari boobu nga xam ne nii ah lu ne def na ko ci dundug yonente bi sallallahu alayhi wasallam dem na ànd benn bis ci jamonoy Ousmane armée islamique dem nañ ba waree traverser géej pour jottali l'islam dernier géej bi gaa yi sahaaba yi préparé wu fekk mag la mu daal di dem jël ay jaaseem ak tenue de combat mi ngi ak doom yi mag jóg doom yi taxaw waaye bàyyi bàyyi diit waay jihaat nga ak yonente bi alayhi salaam ak Abu Bakar ak Omar ñooñu génération yi dem nañ léegi mag nga bàyyil ñu jihaat mu ne xanaa da ngeen jàngul la yàlla wax ci suratu tawba infiru xifaafan wa siqaala waaw su ngeen woyefee dem leen su ngeen disee dem leen bàyyi leen mooma dem jihaat yi ban demee yi ca gaal ya ca gaal ga la ko yàlla moom sahabatul kiram di dox ci biir géej pendant sept jours am na riwaay yu wax sax neuf jours waaye pendant sept jours la ñuy doog a gis île buñ ko suul keroog ba mu dee ak keroog bañ koy suulee dara changé wul ci moom radiyallahu anhu gis ngeen mi ngi noonu son suñu borom subhanahu wa taala mu ne looloo gën ci yéen mu delluwaat nag ci yéeféer yi mu ne bu doon tey ne yow fa nga leen woo jëmee xam nañ ne buñ demee am fa ngañaay yoo xam ne nii yoo teew la ak yoonu jàmm kon ñoom ñëpp dañ la topp mbokk lii bi ko alxuraan di wax de quatorze siècle la waaw tey jii sunu doom yi yaakaar ne buñ demee Espagne tedd buñ demee Italie tedd ndax li ñuy daj ci géej gi da ko daj ci désert bi sahabatul kiram dajoon nañ ko laa wallahi sahabatul kiram dajuñu ko woon ni ñuy risqué seen vie tey rek maa ngi dégg ñuy wax naan am na dix gaal yu réer depuis deux mois kenn xamul ci ñoom xabaar plus de mille cinq cent ndaw ma nga ca yal na yàlla gindi leen ci jàmm ñii nga xam ne dañuy jaar ci àll Nicaragua bi jëm Amérique suñ la waxoon àll yi ñuy traversé ak danger yañ ciy yañ ciy jànkonteel da ngay yéemu ci yàlla waaye maadaama ñi ngi imaginer rek bi su ma duggee Amérique bi su ma duggee Espagne bi su ma duggee Italie danaa am dara xaala xalaatuñu li nekk ci diggante bi loolu lu mel noonu la yonente bi alayhi salaam doon wax naan cey ak a diis jullig fajar ak jullig gee ci naafiq yi bokk naafiq yi comme seen lépp ngistal la woon jamono yonente bi courant amul donc ki ñëw fajar kenn xamul kan la ki ñëw gee kenn xamul kañ la fajar gee daawuñu teg seen tànk ca jàkka ja gis ngeen yonente bi alayhi salaam mu ne wallahi bu doon ku ku ñëw ci ñoom buy dem ñu jox ko benn faar caay mi nii xam nañ ko faar faaru xar kuy kuy génn ñu jox la benn faar kenn ci ñoom du tarde julli mi ngi noonu tey jii misaal bi ñu cey joxe rek biral càmm bu ñu ne woon ku julli si fajar ci jàkk ji boo génn jox la dix mille ah yaakaar na dana daan ah dana doy war de gis ngeen ala kulli xaal suñu borom lu la wax loolu it mbokk lan la ñuy jàngal mbokk adduna lépp loo xamee ne nii wàllu diine la gàllawaay boo ko mënee rek def ko xoolal buñ ne ci diggoon àdduna looleen moo tax ñi ngi woo képp ku yàlla nattoo gàllawaay doo dem jàkk fajar wala doo dem jàkk gay wala am na lu tëddee dem jàkk laajal sa bopp su doon tene su ma demee jàkk ñu jox ma fa enveloppe tel ndax man danaa tardé wallahi doo tardé am na histoire bu nettali bu ñu suñu mbokk bi Muhammad si bi di nettali hafizahullah nee na uffit booñi xam ngeen yëpp ab yéeféer la daa tabax benn juma ca Côte d'Ivoire bi mu tabaxee juma ji caami nee na am man day juma ju yéefar tabax du ma fa dem nee na ba ñuy ubbi juma ja nee na ufeet ñëw toog ci bunt bi ak i maalam ku génn ñu dóor la enveloppe waaye nee na addi bu ja ca topp 11 heures fekk juma ja fees ala kulli xaal mbokk doomu aadama yi daal lu mu mën a doon ngal la waaye del comparé jaamu yàlla gu mën a doon compareel waaw su doon tey dañ ma cay dig nangam ndax danaa ko def déedéet lu xaraam lii ngay def buñ la woon bàyyi ko tey tey naan ko tub sàngara bu ñu woowoon muy wax man daal mënu maa bàyyi mënu maa bàyyi ñu la kaay bàyyil sàngara pendant un an ñu jox la un milliard ndax gars yi du bàyyi sàngara ah kay kon ku nekk del comparé la ngay xalaat ci àdduna ak la ngay xalaat ci àllaaxira amaa nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca mbaaxam ga yërmande ga lu mu doon def jox ñu ndigal kaay leen ñu dem benn waaye jóge fële baal ma de ay yow mi yàlla yónni man sama jabar dafa feebar ay yow mi yàlla yónni sama yaay daa dee biig ay yow mi yàlla yónni man si buru laa fanaane ay ku wax rek mu ne la baax na lu wax baax na yow sunu borom nañ ne ko ay yow mi yow mi yàlla yónni afallahu ank gis nga yàlla ak ak war ma bi mu jox ak yeneen tam du ko critiquer mukk lu dul mu jëkk a wax njégal gam ko defal yaa yohan nabi li ma tuharrami ma ahal allahu laka tabtagi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim am di noonu la naam naam yàlla yàlla baal na la kon lu tax nga leen di jox ndigal ca leeru la ana kan moo wax dëgg ci ñoom ak kan mooy feeñ ci ñoom mbokk histoire nafiqi bi dal nañ ko incha allah buñ fi dajewaat it dañ continuer ci ñoom yal na yàlla musal ñu ci ak nafiq yal nañu yàlla boole ci jaamam yu dëggu boole ñu ci ñuy jihaad ci yoonam dëgg-dëgg jihaad yal nañu yàlla boole ak yonente bi ak sahabaam ci àddina yu kawe ya wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain barakallahu fiikum jazakallahu khairan incha allah ah waaw xam naa jaay bi ci biir jàkk bi de mooy problème bi waaw xam naa su waaw waaw xam naa bu ñu mënoon taxaw ci bunte rek wax ko parce que pour waaw waaw rek xam naa lu jiitu am na kii mbokk téere bi nu muy wax sax mooy sa waaw day waaw day wax rek benn téere boo xamee ne nii ñi ngi ko doon def di lancé ko ci fële juma docteur Mohamed Lo bi mbokk bi da ko bind di ko wax salafisme ak conviction ab téere la boo xam ne ndaw ñi ko soxla bis bu ñu jokkoo mbokk benn mbokk bu ñuy wax wage incha allah daañ mën a fexe ba jokkoog moom ci loolu waaw ñu ngi noonu bismillah waaw non bi nit ñi faatoo. wala ku li xaala shahid moom buñ koy wax mooy ki dee ci toolu jihaad kooku la ñuy wax dafa shahid mooy dëgg-dëgg shahid mooy ki nga xam ne kenn du ko sang dañ koy suul noonu ak i jam-jamam mu desit koo xam ne dañ koy tudde shahid mooy koo xam ne ca toolu jihaad la gaañoo waaye nag nibbi na ba këram doog faa deeyee un jour un mois wala un an lu mu mën a doon mais daal jam-jam ya toolu jihaat la ko dalee kooku dañ cay boole ci shahid yonent bi alei salaam ne ne ki dee dafa lab julit bu labee dafa shahid julit bu lakkee dafa shahid ki nga xam ne dafa jógoon di xeex ngir défendre alalam dafa shahid ki nga xam ne nii dafa dee ci tremblement de terre dafa shahid ki nga xam ne métitu biir mooy la nga xam ne nii moo ko rey dafa shahid jigéen bi nga xam ne dafa doon wasin far dee ak ëmbam boobu dafa shahid ñooñee kon dañuy yor la nga xam ne mooy grâce shahid bu leen yàlla subhanahu wa taala di jagleel waaye dëgg-dëgg shahid moom mooy koo xam ne te tuulu jihaad ba nga faatoo wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam waaw alazina yaknizuna zahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah loolee ma ngay wax ak ñi dul génne zakat ki yor alalam denc ko même bu dee liggéeyu ca mayewu ca waaye wi at mu nekk mu génne zakatam loolu kenn du ko tuddee këns kenn du ko tuddee këns la nga xamee ne nii moom la ñuy tuddee këns mooy lu ñu génnewul zakat loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom xam-xam yi nag am nañu ixtilaaf ci ndax gannaaw zakat boobu yenn wareef yi war war na ko am déet te mooy la mu war a jox ay jegeñaalam ak yeneen waaye daal li tax suñu borom di wax ci aaya boobu mooy loolu lu dul ne ku mel ne abu zar al xifaari moom safaanoo woon na ak sahaaba yi ci loolu abu zar da daan jàppanteeg sahaaba yu bëri ba usmaan sax da koo xawoon na na ko na dem ngir bañ a jur fitna abu zar moom dafa dafa jàppoon ne képp koo xam ne fet nga sa aajo ba pare denc alal kanz la yombal xiyam yàlla dala ciy mbugal waaye nag jumhuru sahaba lañ ko firee mooy képp koo xam ne du génn zakat kooku la ñuy wax moo am kanz même bu dencoon 500 millions 1 milliard maanaam muy génn zakat kenn du ko tudde kanz wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw kon kon
am na yoo xam ne lu bari avant avant ay noyyi fi am dafa leen xam ne def attention parce que dafa am weer yoo xam ne yàlla ko ormal kenn bu ko yëngu donc aay nañ ci daal koy xeex ñu ñu ñu faale woon
wala kulli xaal la chaque ne doomu aadama yi xamatuñu yu bëri ci li yàlla warmaal ak li yàlla warmaalul suñu ndaw ñi quatre vingt dix pour cent xaw nga quatre vingt quinze pour cent boo leen laajoon weeru lislaam yi xamuñu ko am déet li ñu xam mooy janvier février mars avril waaye xamuñu lan lan mooy weeri yàlla warmaal ak li yàlla yàlla warmaalu loolu la ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee wareef la daal ci doomu jullit mu xam ni calendrier bi muy sukkandiku moom ci jaamu yàllam yépp mooy calendrier weer wi ki nga xam ne day tënj ñu ne dafay war a tënj 4 mois 10 jours mooy 4 mois ci weeru lunaire yu teg 10 jours kii génn zakat at mu nekk mooy douze mois lunaire ca lañ koy tënk am na ñu bari ñuy juum naan masalan damay génn zakat janvier ba janvier mars ba mars loolu njuumte la bu la yàlla dundalee 33 ans yoo génn zakat ci année solaire am nga at at boo tëpp 33 ans année solaire égale 34 ans année lunaire loolu moo tax ba boo xamul sax at bi at bi ni mu ni mu toll lu mu bon bon décalé ko 11 jours masalan joxe woon nga zakat tey jii le 11 janvier bi passé xamal ne déwén yaa ngi war a joxe zakat le premier janvier gannaaw déwén yaa ngi war a joxe zakat à peu près le 19 décembre ainsi de suite donte ne loolu la ko gën mooy fexeel ba xam fan la we weeru islam bi toll tey lu ñu waxoon dañu ñu ngi juróom benn fan ci maamu koor nga jàpp ne juróom benn fan ci maamu koor ci lay génn zakat heure bu dellu si waatee ci at bi nga xool li la yàlla wërsëgal nga jël ko diviser ko par 40 lii la ñuy wax mooy sunu calendrier mooy calendrier l'islam yàlla na yàlla dundal ñu l'islam saxal ñu ci l'islam te fay ñu la muy fay waa l'islam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw waaw waaw ala kulli xaal waaw mbokk julit waaw ku yàlla nangul sax shahid daal da ngay dugg àjjana directement ku yàlla nangul sax shahid da ngay dugg àjjana directement wallahu subhanahu wa taala alam naam